tey nag ñu fas yéene dikk ak yéen ci ay xew-xew yu tasaaroo ci réseaux sociaux yi ak les waxul gi ci am muy ay ñaawteef yu ñuy faral di nemmeeku rawatina ay bis yi ñu dëgg yu génn rawatina ay bis yi ñu génn fa ñuy tàmbalee ci fàttali bisub altine yemoo korite ba ca suba ga nemmeeku nan xew-xew bu doy waar di ay xale yu góor ak yu jigéen yu jaxasoo woon àndandoo woon ci benn appartement di def naka sudul noonu mu mel ne rek liy xew ay répétition lay doon ci li fi weesu moom koy xanaa dañoo toll rek ci mujjug jamono wala dañoo gumba tëx teg ci xamatuñu fu ñu jëm waaye xàmmetuñ sax ñu ñooy ñan saa su ne ñuy daw di topp ci bàyyilun moom ñuy dem sax bay perte suñuy valeur di perte suñuy identité ngir doon ay bàyyi ma mu mel ne li xewoon cité mixta lendemain korité 2020 bi du fi lu yees muy ay xale yu amagul fukki at ak juróom-ñaari wala sax buñ ko amee ca calan yam ñu àndandoo di def naka sudul noonu lu ni mel moo am ci kaa Diop Iseg muy lu yàggul dara ñu teg ci kii di rangu ràngu mi nga xam ne ca wet ga ñii ñu tuppee fils à papa ñoom tamit topp seen bànneex di dorogewu ba am sax ku ca génn àddina ñu gën ko xam xam ci Iba Thiam muy lu ñaaw nag ñu ëpp ci askan wi di ko ñaawlu rawatina pataaral ak noppi gi nga xam ne l'état du Sénégal mi ngi ko ciy noppi kumba am ndey ak kumba amul ndey xanaa dafa am rek ci yëf yi ndax ñaata nit lañu jàpp dóor leen ba ñu bëgg a dee ci jamonoy couvre-feu boobee pourtant dey xew-xew yi ñuy nemmeeku yu ci ëpp ci jamono couvre-feu boobee lay amee mu mel ne rek ku ñeme dañu la déy ndax xale yi déy bu ñu ñemee wala ñu am fitu sax di def yu ni mel ci sunuy charte réew ci article 111 du code de la famille ak article 18 de la constitution de 2001 dafa tere mariage précoce ci xale bu amagul fukki at ak juróom benn muy muy wuuteeg lool suñu diine rawatina àddaak cosaanu réew mi ci jamono ci lekkool yi ñoom mënees nañ ñoo ngi jàngal xale yi nan lañuy defee rapport sexuel ak nan la ñu utiliser préservatif walla sax nan ngay def ba aar booy sëy wala sax nan ngay def ba doo ëmb ci booy sëy planning familial ca wet ga ñaata xale ñoom la ñuy nemmeeku ñuy faral di def planning familial boobu te amuñu muy nag ab laaj bu samp askan wi di ko laaj droit de l'enfant tamit ñëw mu mel ne xale yi ñoom ñoo ëpp ay droit ëpp ay àq ak yelleef bépp doomu aadama ñaata sëriñu daara lañu jàpp dóor leen tëj leen ci kaso yi ngir ne rek dañ doon jubbanti ay ndongo lépp rek li ko waral mooy dooleel xale yi ci mim réew série télévisée yi tamit kenn demul ñu des mu mel ne yooyu yépp bu ñu ko boolee dañuy gën a dooleel lii di àq ak yelleefu xale yi fii ci réew mi mu mel ne rek dañoo jël seen doole yépp ngir xeex mariage précoce te mësuñoo xeex lii di relation sexuelle précoce muy lu doy waar lu ëpp ci askan wi ñëpp di ko ñaawlu waajur yi warees cee bàyyi xel waaye nguur gi tey itam kenn demul ñu des